amaat xol bu métti rek sama àdduna ndax euh, dama di jeune bëgg Kaolack à chaque fois fa lay sama wax bëgg Kaolack fonk Kaolack aw ma ludul Kaolack sama àdduna tey su ma ñëwee fii nga xam ne mooy xaaxum ma ñëw gis population bi nii ñuy dundee fii seen kër yi wallahi lazim sama xol jeex na sama xol jeex na man ndax tey su ma xalaatee man su ma ñibbee sama kër wallahi alazim billahi wala di nelaw wallahi alazim ça fait des ça fait un mois que ngi tok seen kër nelawuñ ngir lan amuñ fuñ fuñ sax de problème ci ñom donc nak loolu manam tay mo nekkon samay tank tay fi ci xaxum ndox mi fi ndax ndax aussi tamit euh, ndax tey tey man bokk naa ci ñi nga xam ne tey Touba Ndorong tey man dañ maa sigil rawatina fii ci xaaxum ndax ba élection présidentielle jotee ñoom dañoo génn ñoom seen i kër dem votel son excellence monsieur le président de la république Macky ceeb ak diwlin maanaam nit am na lu mu ko jëndee ci àdduna yàlla gémmañ gum xar dina ci def maanaam dina ci def mii mais lii sama problème mooy ndox mi ni mu fi jugee te dafay war a jugee ndox mi ci lu gën a gaaw ndox mi dafay war a jugee ndax aussi tamit tey maanaam am na ñoo xam ne ñu ngi politiser lii di indi seen ñetti saaku ceeb ak seen ñetti bidon diwlin foog ne loolu mooy gérer li moom mooy gérer situation bi loolu gérer wul situation bi situation bi li koy gérer mooy maanaam ñu ut ay moto pompe moto pompe ndox mi génn fii askan wi am fuñ mën a am am am am fuñ nekk. semaine bii di ñëw ci kàttanu yàlla damay ñëw indi ay moustiquaire indi aussi tamit ay moto pompe. aussi tamit ut ay ay ma maanaam xaruma ma maanaam xaruma kenn ci loolu maanaam ut aussi tamit ay camions yu génne fii ndox mi pour vider ndox mi pour askan wi mën a nekk ci jàmm ndax aussi tamit maanaam affaire bu ñu ko politiser di nax nit ñi di nax population bi bu soxlaa population bi utiliser leen sànni leen man loolu laay xeex man mi taxaw. parce que ñun amuñ fondation ñun suñu doole bopp la ñuy indi Kaolack di ko maanaam askan wi ñu ngi gërëm aussi tamit son excellence monsieur ndax lancé na projet plan Orsec. et d'autant plus tamit maanaam am na yërmande ci gox bi am na yërmande aussi mi Saloum ndax li mu def Saloum ba mu toogee ba tey président toog na fi may mais mosu koo def ci àdduna donc man gëm naa ne démb démb damaa suivre mu jël téléphone am wala ministre Aliou Ngoundiaye kii est mon grand frère nga xam ne à chaque fois ci maanaam moom tamit aussi tamit ko président dénk rek maanaam ànd na ci loyauté aussi tamit di ko doxal ni mu waree moom gëm naa ne ndox mi nii même ñun buñ ci defee suñu partition bu ci président desee incha allah rek ndox mi na fi jugee ndax aussi tamit ndox mi daf fee war a jugee am nañ ci moom yaakaar ju rëy yaakaar ji nag du lenn lu dul ku ñu dimbale ci ndox mi te damaa jàpp ne Papa Gueye mii nag bu amutoon ambition pour dimbalañ ci ndox mi du xuus di ñëw di tawte soo ba tey mi ngi taxaw fee di tawte nag am na ay terrasse bu mu tëdd ndax xam naa xam naa fa mu am na terrasse bu mu tëdd waaye damaa yaakaar dafa am ambition pour dimbalañu moo tax mu ñëw xoola ministre bi Pape Seck mi barki dem police ko fi jël si ta ku koy defarloo ay armoire defaru ko bant yi dugg ci ndox mi metti metti foo ko takk romb ne ko suñ méttir wi amatut nag manque ndox mi may ñu oddi sa wele ki sànke loolu ñor nañu de ñëw bi de liñ ci séentu xanaa ku ñu jàppale rek ba nga xam ne dinañ am canal defaral ñu fii ba mu baax daal ba lu bëri wàññeeku fi nag ndax sonn nañ torop nag loolu lañ séntu ci moom métti mi na nag ndax am na xale yoo xam ne maa ngi ko yóbbu kër Aliou Boye samay sët yoo xam ne maa ngi leen yóbbu kër Aliou ndax ndox mee tax ma yóbbu leen fa te bu tax to nag ndox mi fii la ñuy toog ci kër gi ñun ñëpp a sonn nag waaw sonn nañ su suñu ci gannaaw sax a gën a sonnati nag ñëpp a sonn